kon ki xam ne rek moom moo di Kumba Gawlo Seck Labrador la sublime dégg mu wax. lan la wax Mbaye <laughs> lan la wax. man lu mu wax ah déet jaare dégg nga la mu wax. ñu kañ la lañ lay laaj. lan la wax Malière yi laa ko. waaw mais déedéet déedéet déedéet déedéet suka dégg nga ma la mënoo def animation. nga ne ku jaajëf Kumba Gaw la la sibli la kii dégg nga la mu wax lan la wax. saa li nga ma waxoon dama la posé question yow saa bi nekkee hors antenne loo ma waxoon. mais lu mu wax yow ku yebu yow rek la. lu mu wax kii nii lu mu wax. Ibi Dieng ma ñeexoon ma ko dund ma ko mbaxaat ba xam ne diri dira lan mooy loolu lan mooy loolu kumba tuxu na sa mbay mbayaan na Sénégal ba pare léegi ma dugg Mali kumba de réew mu dugg dana raasaatu la fa ne ma nga Mali nag ay kumba Nigéria la jëm albumum bi dem na Casamance dem na Casamance dem na Fuuta dem na fépp ay kumba dem na Mali dem na Casamance nga Mali macha allah ba lu wax nga ne yow su kaa mi dégg kii ba ne dégg nga lam wax ñu ciy nuyu da ci nuyu kumba gawlo yëpp <laughs> da tappale ne dégg nga lam wax xam lu wax waaw ublo suñu takkee tolo way suñu astafurlah su ko ajulee ublo ci loolu dañ koy dalal ko xam ne rek moom moo di histoire oustaz Iran Ndao ci li nga xam ne rek moom moo di suñu deuxième numéro de la semaine seen émission bu mag bi moo di la part musicale tas i xanu nan ko waaw ñu ngi lay fay mm-hmm. soxna Sukayna di nuyu tamit mu ki nga xam ni moo nekk ci xarala gi ñu koy wax Modou Fall mm-hmm. di ko nuyu di nuyu soxnaam mm-hmm. moom bi mu takkee soxna bu dëgg ni gis nañ ni muy doxee macha allah ah liggéey bi dafa rafet loolu macha allah mm, waa oustaz Iran ah, dañ la doon laaj rek li tax nga wax ni que Macky Sall président Macky Sall tëjul ki nga xam ne rek ah, moom moo ji Khalifa Sall li tax nga wax loolu jërëjëf soxna Sukayna damaa xam Macky Sall walaay ndeysaan <laughs> Macky xam naa ko nit gënu ko yaayay uh-huh. Macky dafa baax jabaram baax c'est uh-huh. nga boo baaxee sa jabar baax mbaax dong moo mën a na ci moom dëgg la Khalifa uh-huh. justice moo ko teg justice moo ko teg parce que mm. li tax justice teg ko. Mm-hmm. justice mu mm. ah, juum. ah justice a juum. waaye justice mooy ndax xalifa deful. justice. waaw ah. moom mooy président Macky Sall ah. rek. mane ne soxna si dama bëgg nga déglu. maa ngi lay déglu kay Macky président la. moo tax ma wax la loolu. Macky tal na leneen. lu dul di tëjee. Hmm. Macky day liggéey. day liggéey. kooku li muy inauguré. li muy inauguré ci man li ma jaaxal oustaz ah, eh, oustaz politique ma nag déedéet oustaz ah. Iran temps yële dañ la déggoon mm-hmm. nga toog ci euh, seen télé sa télé boobu le mm-hmm. di wax ni que nan bàyyi ki nga xam ne moom moo di ah, waaw wallaay loolu ndax lu ne wax nga ko ci Khalifa Sall mu mm-hmm. wax li nga xam ne moom ba merci ba nit ñëpp bind ko nag tey nga xëyee waxaat nii nii li ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall tëjul ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall ndax ndax président Macky dafa baax ndax xam nga ko ñu waxati loolu nga ne soxnaam dafa baax yaay yaay nag. Mm-hmm. ah ci nag nu ma yaay. sa jàng yi ngay am te tees gi ngay def tees. yi lu fa. Mariam day ñëw takk ci rëpp. day ñëw takk ci rëpp. Mariam Faye Sall la première dame. Mariam Faye dafa bëgg diine. l'islam la bëgg. Mariam mooy jigéen ji nga xam ni moo nekk ci bëgg l'islam mm. wute lool ak jigéenu tey dem bu ko neexoon mu ne saalis bi mm. dama koy def ci ay tànni beer mm-hmm. wala dama koy def ci ndakkase mm-hmm. waaye dana diine mm. ne Iran diine rek lay wax yàlla yonent bi mm-hmm. kon kii faaw ma compal ko di yëkkati juróomi million jox ma ne ma préparé ma préparé ba defe ni pare na mu yónnee waat juróomi million ne ma def ci ay bernde ñu pare mu ne ma oustaz sonn nga yëkkati waat juróomi million ne ma noppaloo ko ma dem sali tëdd walaay ndeysaan di kon Mariam la fi lii bu dugg sali la eh, ñeneen ñëpp dañ ko doon na fi yaa yey nag ni président Macky tëjul xalifa def ko yey xalifa li ko tëj justice la. justice bi benn la. waaye président du tëj. dëgg sa dëgg ndaw dëgg la dafa baax. moo gën a baax xalifa président yaay xalifa nag sama xarit la waaye loo baax baax am ku la gën a baax yonent yëpp biñ dajaloo sallallahu alayhi wa sallam moo leen gën yàlla rek ay hakim waaw mhm. moo taxit politiciens yëpp biñ dajaloo président moo leen gën dafa baax nag waaw Sénégal mi te mën a changé fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 99 99 114 yàlla lépp ci diine gi yooyu mhm. alors asalaamaaleykum soxna Souka Mbaye. waaye fay naa la yokkal tuuti kàddu gi. waaw ngi nuyu Iran Ndaw. fay naa la. waaw Iran Ndaw. waaw. Iran xanaa li la Mariam Faye di defal ak li nga xamante ni bii moom la la Macky Sall di defal. yokkal tuuti saw kàddu léegi. li ngay wax ni yëpp ne tëj ko waa léegi dañoo bëgg rek nga leeral ñu yow kan moo ko tëj xanaa nga ni lii Iran log nga de log nga de Iran <laughs> Ndaw log nga. jërëjëf ilaa log nga loolooy wax bu ñaaw ah, lu ma la ba xam ma li wax dëgg laa wax <laughs> nekkuma fi di loga ko loggar ci lii wax nii ah. e, di wax ni justice moo tëj xalifa mhm. waaw parce mhm. yor xaalis mhm. bi mu jëlee xaalis bi ci justice wax yaa ngi xam nga ci dara bind pain e au ak chocolat te ndekete jëndul peole hmm. justice laa wax boo bindee peole sokalaa dafa war a feeñ ci kayit gi waaye peole newul ci kayit gi sokalaa amu fa hmm. waaw te bind na rosi peole mhm. bind rosi ñebbe xam nga ci dara bind rosi wala justice mooy wax yow dañ laa waaw ah, Kole nga dëkk déet bari ma fay tànk juróom benni fan laa fay dem ci semaine bi. bari wu ma fay tànk muy kañ ma mardi mercredi jeudi vendredi samedi. Ah, kon kay dimanche dimanche damay noppal. waaw moom noonu la foo noonu la baax euh, kii mm. ndaw. jàpp nga ma. waaw yaa ma dénoncé. <laughs> Euh, jërëjëf oustaz Iran Ndao euh, ñu ngi koy di ko di féddale suñu kóllëre ak ñëpp ñi nga xam ne rek nee naa la ñu ngi ñuy bàyyi xel fii ci Walfadjri leeru jamono ñu ngi leen di nuyu di nuyu ki nga xam ne rek moo di Serigne Moustapha Sarr dëpp fële nga xam ne rek moom mooy de Touba xaddama xaddama ñu ngi leen di nuyu lu bare bari Serigne Moustapha fàttewuma Serigne Cheikh Sarr Serigne Djili Sarr Serigne Sang Sarr maa ngi feddali sama kóllëre ak ñeen Sarr sori mata jaba ma cëg wi texe maa ngi leen di nuyu lu bare bari di nuyu soxna maam say saax ñu ngi leen di nuyu lu bare bari fàttewuma Ndeye Adama fàttewuma Issa Mbaye ak Aram Ndiaye ak ki nga xam ne rek moom moo di Fatou Mbaye euh, donc bu ñu jógee ci ki nga xam ne rek moom moo di Oustaz Oustaz Iran Ndaw mu leeral yëkkati ay kàddu wax ci li nga xam ne rek loolu la xam ci diggante euh, ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi ak Khalifa Sall donc dañ koy daal di dalal ko nga xam ne rek moom moo di euh, maître El jouf mu ñu gën ko xam rek député du peuple di def lu ko neex di xool fa mu neex mu di fa dugg man man nee naa maître El Hadj mooy moom bu ma nekkoon ci leneen moom may plaidé ndax macha allah maître El Hadj Diouf nuyu nañ la waaye Diouf ñoo ko bay. Eh, maa lay fay. madame Samba. ah maa ngi lay nuyu lu bari bari. Eh, waaw dëgg la. Eh, di la fay bi. c'est <laughs> vrai pour ñu waxtaan. pour ñu jéem a xool comment faire quelle stratégie on va faire. pour régler la monde. Mm-hmm. jërëjëf nga laaj a tontu. Euh, man El Hadj Diouf. dugg nga ci Hissène abre mm. mu taxee mu taxee mu demee na le mm. nga jóge te demat ni ku ne nga ku mu ñëw rek nga ni ko da nga koy plaidel mm. nga bëgg nag dugg ci ki nga xam ne rek moom moo di dossier Mamoun Diallo yi nga xam ne da cee takk ripp. ndax Sonko nag du wax lu dul dañ. waaw li tax nga takk ci ripp ci lii. Eh, jërëjëf. lépp lu may la dama def professionnellement. Mm-hmm. parce mooy kii bi mooy waaju ibaaru bi. Sonko voilà <coughs> ibaaru bi. xamoo turam. sëñ <coughs> bi moo tax ma ne ibaaru bi. Ousmane Sonko. waaw déglu ma déglu ma sëñ bi soxla si. xale bi xew ci jamono bu dee xew na si jamono it dina xew ci justice. parce que yoon lañ ko yóbbu te dinañ jaar lépp ci yoon. waaw <coughs> eh, ibaaru bi dafa ñëw. Ousmane Sonko waaw mais déglu ma wax leer la. Ousmane Sonko la bi mu ñëwee yëkkati ay kaddu. Mm-hmm. dal ci kaw sama client Mamour Diallo. Mm-hmm. Mamour daal di dal parce que moom bëggul coow. Mm-hmm. mu ne tegu ci siraatal mustaqiim. moom Mamour Diallo yow yaa ko wax ne ko defal noonu xanaa. non. Mm-hmm. parce que moom dafa nekk nit ku dal. ndeysaan. Sonko di war dëkk bi fu ne mu dem mitin. Mamour Diallo sàcc na alal réew mi quatre-vingt-quinze millions. maam Diallo di déglu ay jabaram di déglu ay doom di déglu bu jabaram demee marché ñu ko sa jëkkër a bu doom demee école ñu ko seen bàyyi sàcc maam Diallo ji moom <laughs> ñu defe mhm. pare na mu wër àdduna dem États-Unis maam Diallo sàcc na réew France maam Diallo sàcc na réew mi Italie maam Diallo na réew mi amu ci preuve maam Diallo ne waaw waaw comme waaj nag wax dëgg fa yàlla mi ngi ma sama de mm-hmm. di ko yàq ba samay doom mënatuñ jàng école sama jabar mënatu la dem marché mm-hmm. sama mbindaan su génne sax ñoo ko yaay mi daan sàcc bi lii terrorisme la maa mu jaale nekk ci fitna woo ma ñëw mu wax ma ko mm-hmm. nga def nan daka ah, kii de mooy benn la dem lii mu def ni attentat ma ñëw ne ko waaw yëf yi mu ne woon ma lépp yu leer kani sa gars li muy di ko daqal dégg nga yow moom da ci dàq lépp. Ousmane Sonko loolu waaw dégg nga moom. Ousmane Sonko man man avocat laa. Ousmane Sonko waaw da cee takk lépp. ah waaw man ma ne bu doon bu doon bu doon dañoo tiim boolu soos Ousmane Sonko moo ñiit moo ñiit bool bi bu doon boolu soos la dernier cëpp bi ñu def. Ousmane Sonko moo ko raatale. Ah. ci mburoom man de loolu xam nga mburoom kiiroo moo ci ëppale. <laughs> dara dara dara noonu. waaw ah. yóbbu nañ ko justice. Mm-hmm. Eh, Babou Diallo dana ma. Mhm. naa seere nga xam ne mooy mbir mi parce que sax bëggaguñ ko yóbbu si parce que Babou Diallo bëgg pour ma dénoncer ko ci rajo yi ak télé yi. Ah, la dénonciation parce que fi mu jaar ma ne dinaa meeting fu mu toll naa war a réew mi fépp dong ma sonn teg tànga ma teg fa daan ne ah waaye fi jaaroon. ak si kibam lim fi dara mu ci. léegi Mamoune Diallo du ko defal boppam yow yaa koy defal. dañ ma fay pour ma lay je suis payé pour ça. ah d' accord je suis payé pour ça. pour seetal moo tax nga ma ñëw ci bi. plateau bi bu ma ñëwee éthique ak déontologie moo fi liggéey teg lépp ci siraatal mustaqim. dëgg la que am na loo xam ne ko nangu. duñu ko nangu. dëgg la Sonko di war di wax ñu koy bàyyi bu waxee on va l'attaquer parce que moom tamit di jàmbaroon nañ ko jàmbar. te moom tamit daf cee tax kripp. waaw rek ndax nee nga. waaw su bu leen boolu soos la. mu ah, dëgg bu mujj bi moom la. dëgg dugg dëgg bu mujj bi. moom la moom la ah d'accord. bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 99 99 114 allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Souka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. way way maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. waa di nuyu bu baax maître El Hadj Diouf. maître El Hadj Diouf nuyu nañ la. yaa Maître El Hadj ñun dañu gis ni yow. waaw. Eh, yow daal vraiment di eh, eh, seen abré defender nga ko fii. défendre fii Yaya Jammeh tey nga ñëw ci. ma kii nu mu tëdd Mamoun Diallo. waaw Maître El Hadj Diouf xanaa yow éthique ak déontologie faale woo ko xaalis rek nga lijjanti wala nu mu demee noonu jërëjëf. te ma jaaxal mooy ñi mu plaidé ñëpp a daanu. yaay jàmme yaay dem na nërmeelu na. Eh, après mooy loolu. yaay bu su ma nekk avocat am. ah dama ko doon protéger. da ngaa wax lu ci da nga faa wax lu kenn waxul. Ah, dama ko doon sédir <laughs> mu may. bu su ma nekk avocat am ah. waaw. déglu ma seen après ba day nga sama xaalis moo tax mu tëdd kaso bi. mu tëdd kaso bi waaw te doon. parce que mi sama xaalis fayu ko. seen da ngaa demoon rek. dama dem dama ko doon pro man maa nekkoon avocat ñu koy mhm. ma. nga dem ci kan bi ma dàqee. Mhm. ma toog jàpp sama njàmbur waaye ma taxit ma ci kaso bi Mamour Diallo mii nag. Mhm. éthique ak déontologie moo ma fa yóbbu. Ah. li may def sa éthique ou bien daal déontologie parce que lépp dama ko jël teg ko si siraata mu saxib. dëgg la siraata mu saxib mooy lan. man li may doon seet yàlla seetlu ma ci xaalis kese. <laughs> seetlu ma ci xaalis kese donte ci la. mën nga ci biir ah, waaye du moom dong laa ci seet. Ah. damay seet dama ci xaalis kese. est-ce que jotoo woog tamit est-ce que tamit jàppaloo dans Ousmane Sonko. ma jàpp ma ne ko faale. Ousmane rek <laughs> mu def kenn man maa a a koy toj. moo tax mi ngi nii macha ah, allah eh, bi mi ñëw dafa nekk mu noonu. kan moom bu ñëwee sama saa sama booy bi sama jaar sama daf ma faa <laughs> Sonko daf ma faa. faaw la sama jaar jaar la jaar. sama extraterrestre te maa ko filing. dama ko caaj dama ko cas ak cacas. noo ko ëpp ne dimbali ma toj nga dëkk bi waaye Ousmane Sonko rek ko yor de. c'est un terroriste. ah terroriste la. da Ida Ousmane Sonko terroriste. <laughs> Maître El Hadj Diouf a ko wax de kon ñu dalal ko euh, Maître El Hadj Diouf jóge na fi wax ay kàddoom yu leer sax dégg nga la mu wax. neen na éthique ak déontologie moo tax muy liggéey tax du ci armée nag nee na xaas bi ci la euh, donc bu jógee ci maître El Hadji Diouf dañ koy dalal kooku nga xam ne rek moom moo di Ndaamal Kajoor ñu gën ko xam rek ci Idrissa Seck Idi nuyu nan la Seck waaw maa ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala mhm. di teewaay bi ma teew ci ah, plateau c'est normal c'est normal mhm. Mhm. Euh, waa euh, Ndaamal Kajoor xam nit ñi nag bëgg xam ba xam seeti bi nga seeti ki nga xam ne rek moom moo di Khalifa Sall Mm. fee nga xam ne rek moom moo di ca kaso ba seeti jàmm salaam la wala da ngaa bëgg daal jërëjëf laaj bi am na solo mm-hmm. xam nga man c'est pas la première fois ma seeti xalifa dëgg la naa ni seet naa ko seetati ko mm-hmm. bii nag dafa fës waaye bi lay yoon li ko fësal mm-hmm. mooy sëmbaxloo gi ci am parce que ñëpp a dem ndaxte du man doo nga dem ndaxte damaa dem Sonko dem bugan gay dani dem madi kee dem muy sëmbaxloo xam nga bu ñuy laaj question bi dañ koo war a laaj ñeneen ñi mhm. waaye waruñu ko laaj ki nga xam ni ñëw na fa ñëwati fa ñëwati te fa bu fekkente ni ay kartu yi nga xam ni moom la kii yor mhm. xaji fa mhm. nga xam ni mën na naa jàpp ni mooy faiseur du roi moom ak Ablaye Wade ndaxte bu ñu joxe ñee ne leen diw diw moomu buñ ko wotelee dina diw dëgg waaye nag loolu bokk na ci mbir mi mm-hmm. ndaxte it bañ ca demee waxtaan nañ ci biir waxtaan ma yëgal ko ni ko santal yàlla te ci borom bi ma falu dëgg ndaxte bés bu ma faloo mm-hmm. fii laa lay fekk ci kaso bi génne la yóbbu la ca sa kër ci di Grand Yoff ndaxte xalifa liggéeyal na réew mi loo xam ne mérité wut nekk ca kaso ba dëgg mhm. ji ko fi dugal mhm. dara taxu ko fee dugal lu dul ragala a jàmmaarloog moom ci élection sa moome mhm. loolu mooy li am waaye damay yaakaar ni bu ma faloo su may ñëw di jël si xalifa damay indiwaale dinaa jàpp ñaari loxo dugal ci biir rocc xalifa ci bitti ñaari loxo yi nag sàll lañ samt kenn kaa ngay wuyoo ca pale ba kenn ka di ca géejaway dëgg la nit ñi xam ko mbaas mm, dëgg na kon ñaar ñooñu danaa leen dugal ba mm-hmm. noppi ñu yor ay ndoom ba di caw ñeneen ñi sant ay fayak ñooñu di dugal ca biir <laughs> a loolooy sama mbir dëgg la dëgg la yow mi nga xam ne rek moom moo di ndaamal kajoor sekk yaakaar naa ne kon nee na moom seeti ba mu seeti ki nga xam ne rek moom moo di euh, Khalifa Sall du seetu lenn waaye nag am na ci droit. Mhm. Euh, bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 99 99 114 Nepad musical allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam euh, su ko am nuyu naa la. su ko am fay naa la sëñ bi fay naa la waaw maa ngi nuyu Idi bu baax. Idi nuyu na waaye Idi man dama gis indépendance justice ñu yàgg ko kaas. waaw mais yow faloo go mais yaa ngi commencé eh, dugal sa loxo ci justice bi. Ah. parce que nee nga bu fekkente ni bi eh, falu nga da ngay ñëw jël ci xalifa Sall. waaw kon léegi justice eh, tëjatut tijjiwut donc président mooy tëj mooy tijji. parce que bu mm. fekkee ne ma tëj yow it nga nekk président boo xam ne da ngay ñëw pour ubbi. donc ana justice foofu jërëjëf. jërëjëf. waaw <laughs> xam nga nag. waxe waxe xam nga kii bi ni ma ko waxee noonu du waxe waxe du defe defe mhm. xam nga ni ma ko waxee noonu ak ko jàngatee wax bu ma ñëwee dinaa laaj justice ne leen nu yëf yi tëddee <laughs> ma justice waxee ma lëkkale justice ak man xoolaat ci justice mbir mu mën a jaar ci lu juste rek ba génn waaye du demee dem rek rocc ko noonu noonu kon li nga wax nii nii doo ko def déet na xam nga bugguma jaxase pouvoir bi waaj déedéet li nga déedéet li nga wax mm-hmm. li nga xam nga li nga njëkkoon a wax da nga saral xol waaw ndax ñu njëkk a dégg ba nga waxee nit ñi am na ñoo bari ñoo xam ne seen xol sedd na dinañ tax dinañ la ci jox carte waaw waaw kon bul xoolaat leneen loo xam ne kii lim la wax nii wax la rek Mm-hmm. waaw waxe waxe du defe defe dëgg la du defe defe waaw du di koy waxee noonu noonu nga koy defee xam nga tamit bu ma faloo balaa may ñëw di jàpp xalifa di ko génne ci biti dina dinaa saytu justice bi déglu ko dëgg la justice xamal ma ne ma yëf yi nii la tëddee mm-hmm. bu ko defee su ma justice waxee nii yëf yi tëddee ngir ma bañ a def ni fi nekk fi newoon mm-hmm. maanaam lux mbóot sama loxo ci justice ba fexe justice ba justice ba daal di am justice bu mu tegu ci justice ba mbir ma juste ñu génn ko ci justice <laughs> leer na jërëjëf ci laaj question bi wax na fu mu dëkk bu may farlu di tëj di tëj ñoom ni jaayam <laughs> mu nekkoon Idrissa Seck ndaamal Kajoor mais suka waaw mm. mais nga seetlu woo leen mais journaliste yi man vraiment xaw ma dañuy nelaw xaw ma lan mais Idrissa li wax la parce que Idrissa Seck bu waxee ne bu faloo day ñëw jàpp loxo Khalifa Sall génne ko ci biti mais dafa faat kon moom bu boobaa mi ngi def comme li ñuy wax président Macky Sall ne ah. justice saa ah, nag méng saa méng nag ah affaire yi dafa doy waar tey jii loolu scandale la waroon nekk parce que loolu ah. bi ko Idrissa Seck liggéey jaaxal na ma est-ce que dinañ déglu war nañu analyser waxu nit ki parce que li ñuy wax Macky Sall dañ ne ko na moytu mhm. na génnal loxoom ci justice bi. <laughs> defu ko de léegi kii di waaj a falu nekk candidat nekk ci yoon wi demandé léegi moom ne moom bu faloo day dem jëli ji kële génn ko ci biti. dama sumuli pare. <laughs> yàlla nu mu ngi lii nga soloon. lii <laughs> bi doo ko si mais yow sol seere. waaw mais damay jàngat. analyse jàngat analyse bu ci bañ a garaamu bu. waaw xoolal ah loolu loolu loolu loolu xalaat nga ko suga déedéet mais il faut que il faut que les journalistes là il faut ah. qu'ils posent les questions qu'il faut